alors Soplo. <laughs> toujours euh, waaw li dafa dafa daal di journaux kii nañ ko bëri na lool Walf Quotidien ñoom def une association sociale du affaire puante Macky pris en sandwich euh, le 23 juin le 23 juin on rappelle juin 2011 euh, on a tous on a tous vieilli. waaw màgget nañu ñenn ñi sëy nañ fi ba am fi doom ak yooyu noonu ñenn fi ñi santoon Diouf sant ñaa ah, ñi santoon Diouf sant ñaa ah yow doon yoon di nappa ñi santoon Condé ñi leen di waajal ñi santoon sow xale jigéen ñi di leen daw rek xaw ma la <laughs> waaye waaye bi amoon bi amoon en 2011 esprit boobu noonu. nekkatu fi ah. réew mi quotidien la def le mouvement du 23 juin un esprit trahi. un esprit trahi bu ak ak ak Walf Quotidien mm. Macky donc euh, switch euh, oui parce que Macky rappelez-vous ci euh, M23 la bokkoon. Mm-hmm. opposition Sénégal bi yëpp. Mm-hmm. laxa lax woon. Mm-hmm. Ah, lax woon ci m pour ay opportuniste ah comme des opportunistes j'allais dire pour euh, fexe ba daaneel Abdoulaye Wade qui mhm. était aussi lui président d'alors en erreur mhm. parce que quand même erreur erreur euh, tollu lu dul ci nga taxaw nga ne yow euh, da ngay am forcément un troisième mandat mhm. alors que il était convenu que nga am ñaari mandat kese yow nga ne yow il faut nga am une troisième candidature euh, ce que justement le peuple sénégalais autour du M23 lui avait reproché moom Mhm. problème mooy le peuple sénégalais dafa am ñoo xam ne dañ ci greffé woon mooy tous ces hommes politiques que vous voyez aujourd'hui autour du, du, président euh, Macky Sall mhm. c'est que j'aime bien Macky prise en sandwich mhm. parce que autant euh, amul lu ñu fi waxul Abdoulaye Wade góor gi xaw ma lan góor gi deena suul leen ko ah, lu nekk ah moom it mu def erreur ñu dugal ko ci ay tuuxi doona ne ko yow war nga fi mën a nekkaat yaay yàlla yaay yonant moo tax collaborateur président dafa war di leer. et président dafa war a am une certaine lucidité. en tout cas assez suffisamment pour mën na euh, yenn influence yi au niveau de ses collaborateurs parce que collaborateur mun na mun na ñëwee. ci manière bu nekk Fatou Ka mun na ñëw parce que dafa am envie jàppale la yow président de la République pour que nga liggéeyal sa réew te liggéey bi ngay def nga am ci ay succès et puis mu doon ngëneel pour population yi mhm. waaye am na ñoo xam ne aussi ay conseillers lañu nekk ci wetu président leneen leen tax a jóg parce que ku leen ñi waxoon Abdoulaye Wade yow yaay yàlla yaay yonant bi yaay Serigne Touba et que yow am nga droit am beneen mandat et que fii keneen waru nekk ku dul yow parce que yow la yow la te du keneen. Mhm. ñoo ñee tey ji nii genn wàll gi yëpp. ñi ngi ci wetu wetu Macky Sall mhm. donc je pense que cette expérience doit pouvoir servir au président Macky Sall de manière à ce que mhm. il ne fasse pas la même erreur que le président Abdoulaye Wade et qu'il ne subisse pas non plus la même humiliation que l'ancien président Abdoulaye Wade. Mhm. Ceci dit, mhm. naturellement Fatouka ñi ngi wax ci troisième mandat. loolu mhm. loolu ci loolu laa bëggoon sax parce que en 2011 loolu moo indi woon li wàllum troisième mandat. tey aussi en en en 2020 ba tey le même débat mooy mooy posé wu waata ah, miiru mandat wàllum troisième mandat te président Macky Sall moo fi doon bañ ca ca jamono yooyee. ndeysaan article 27 ci constitution bi mooy charte fondamentale mhm. mooy li nga xam ne moom mooy carte réew mi ni réew mi war a doxee mhm. constitution bi moo moo ko teg mhm. te ci biir constitution boobu dafa am ay articles ci ni réew mi di organiser je crois que c'est autour de 103 articles 103 la d'habitude article constitution bi 104 la doon doon léegi 103 la bi gars di lëmbee affaire bu Macky dafay changer constitution bi homosexuel la fi bëgg indi. ñoom fexe nañu ba génne 104e article bi. Mm. te en général 104e boobu da daan concerner mm. ce qui s'appelle euh, euh, les dispositions transitoires bu fekkee ni da nga changer. Euh, yoo xam ne dafa am solo ci biir constitution bi pour nga mën ko def mu. correspondre mu jaarale par rapport ak esprit bi tax ñu jóg il fallait nga def une disposition transitoire. Mm. article constitution Sénégal article vingt sept. dafa am lu mu wax. dafa ne président de la république amul droit am ñaari mandat plus de ñaari mandat ñaari mandat yu teg tegle woo président Sénégal amul droit am ko waaye constitution boobu constitution 2016 la. 2016 c'est ça non wala 2017 xamatuma sax. 2017 la woon. 2017 hmm? la woon. non est-ce que du je crois que la. voilà je sais plus après référendum bi la article bi dafa ne président de la république amul droit am lu ëpp ñaari mandat ci la mën a yem bu defee ñaari mandat dafa war yu tegloo dafa war a dem waaye balaa moo wax amul droit am ñaari mandat dafa ne président de la république palam mhm. juróomi at la loolu constitution 2016 la mooy bu bees bi nga xam ne moom moo am après le référendum dafa ne pour sénégalais yi ñuy déglu parce que il faut ñu comprendre ne président de la république amul droit am lu ëpp ñaari mandat waaye avant muy wax loolu dafa ne diiru mandat bi juróomi at la problème bi mooy bi ñuy bind loolu Macky am na déjà benn mandat te boobu du juróomi at juróom-ñaari at la te boobu beneen constitution bu njëkk bi bu 2001 bu Ablaye Wade moom moo ko moo ko organisé ba moom mu nekk président moo organisé deuxième mandat wu Abdoulaye Wade est-ce que yaa ngeen may dégg. léegi kon moom mandat am boobu noonu Macky Sall am en 2012 constitution bu njëkk bi moom moo ko def moo ko ko def te juróom-ñaari at la ko jox waaye bi mu ko joxee juróom-ñaari at moom ci boppam dafa ñëw jëwaat ci constitution bi am lu ci changé ne léegi ci article bi kenn bu weesoo ni mandat bi léegi juróomi at la juróomi at ngay def ci mandat léegi kenn amul droit. am lu ëpp ñaari mandat léegi problème bi mooy est-ce que mandat Macky sàll bi bu njëkk bi bokk na ci constitution bu bees bi parce que yoon dafa ne la loi ne dispose que sur l'avenir et n'a point d'effet rétroactif maanaam loi buñ ko tegee pour avenir bi la pour li nar a ñëw ñu ne suñu kanam. waaye naa point de d'effet rétroactif mooy waaye li ci ginnaaw. concerné wu concerné wuñu mais sauf décision express du législateur sauf que législateur bi kiy bind bi ak ki koy woote. mu am mu leeral ni lële ci la bokk. waaye bu ci waxul dara kenn du ko ci boole. te li ciy wax dara xam nga mooy lan ki ko li ci war a wax dara pour leeral ko. mooy disposition transitoire boobu waaye disposition transitoire boobu amul wala boog disposition transitoire boobu amul te disposition transitoire boobu moo waroon leeral ne yow diw sa mandat boobee bokkoon ci beneen constitution bi te fal la ci beneen constitution bi mandat boobu ci la bokk pour leeral mbir mi waaye dañu ne tekk waxu ci dara moo tax Macky Sall mu dem en 2016 demander conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy saytu li baax li constitution bi bëgg a wax ak lu leer ci constitution bi lépp lu lëndëm moom moo koy leeral. Mm-hmm. mu laaj leen ne leen waaye yéen man sama mandat bi est-ce que ci la bokk boobu bind nañ constitution ba pare. ci leneen laaj ni est-ce que mandat bi ci la bokk waaye conseil constitutionnel daf leen ne Macky mandat bi bokk ci la 2016 2016 je crois que c'est en février 2016 mun naa leen indil date bi boo leen ma ko laajee conseil constitutionnel moo ci laaj boobu Macky Sall laaj ko ne ko ne leen ne ko yéen constitution yi constitutionnelle dama bëgg xam ndax sama mandat 2007 boobu voté nañu ba pare am nañ constitution bu bees boo xam ne léegi par juróomi at la mu leen sama mandat bay jiitu est-ce que ci la bokk dama bëgg ngeen leeral ma ko constitution ñëw jëlaat constitution bu bees conseil constitutionnel ñëw jël constitution bu bees bi liir ko saytu ko ne ko ah Macky Sall bii bokk ci sa mandat bi bokk ci kon mun nañu considérer ni damay wax ni li nekk ci constitution bi lay leeral ak li conseil constitution conseil constitutionnel wax pour que sénégalais yi xam li xew li ma xalaat loolu ñëpp xam nañ ko dama bëgg rek wax sénégalais yi li nekk ci këyit bi nga xam ne moom la sénégalais yi voté ci référendum conseil constitutionnel bi ko Macky Sall laajee daf leen ne daf ko ne Macky mu ne naa mu ne ko président sa bii bokk ci bokkul dara ak li nga xam ne moom ci boppam moom moo ko waxoon moom président Macky Sall moo ne man bii mooy sama deuxième mandat pare naa ci loolu nit ki mooy wax waaye nit ki li mu wax wala candidat li mu mën a wax loolu amul importance ndax constitution bi moo nekk ci kaw nit ñi yow yow yow yow coro neex ak li neex Fatou Kay wala Awa Konde ou le petit frère loolu amul importance xam nga lan moo am importance li constitution bi wax te constitution bi nee na Macky am na droit am troisième mandat waaye Macky Sall moom ci boppam ak li taxoon m am ak li taxoon ñu ne ko ku ñëwaat nekk président ak li fi xewoon ak Abdoulaye Wade kenn doot fi ëppati nit dootul amati lu ëpp ñaari mandat li taxoon ñu def loolu yëpp esprit bi taxoon ñu jóg ba di jóg di pour changer constitution bi c'était pour que ñu verrouiller ko ba nit képp kuy nekk ci président te nga doon nit doo paaseeti ñaari mandat waaye loolu binduñu ko ci constitution bi Macky Sall moom ci boppam bi muy wax moment boobu buggul am ñaari mandat waaye nguur a neex te nguur constitution bi jox na ko possibilité mu amaat beneen candidature kon lenn kese moo ci des mooy bés bu ko yàlla defee mu ne moom li ma wax nii parce que li ma wax nii mooy am. parce que lu ma wax man du dañ. bu ñu demee ba lii ma wax nii mu dellu siwaat jàpp leen ko bu baax. mu def wax waxee ci moom boppam. te mu am droit jàll amaat beneen mandat. parce que constitution bi moo ko wax te constitution bi moom seetlu Aliou Sow xalaat wala li Awa Konde bu boobaa. problème dina am. waaye nag kenn rek moo ko mën a faj. en ce moment là. mooy le peuple sénégalais bu boobaa ñu def ko ni ñu defoon Ablaye Wade. wala nu xanaa wax day fin. entre temps sax peuple boobu dafa gën a. màgg gën a yeewu gën a a gën a mature. Mm-hmm. donc monsieur le président de la république à bon entendeur. d'accord kon eh, kon du ñu dem ci ci da eh, Daouda Ka mii nii sama doomu baay bii nii. Doudou waa ah. euh, waaw Doudou Ka. bi nekk ci li nga xamante ni moo di critique et je rappelle yaa ngi wax sànq référendum yi c'était le 20 mars 2016. 2016 lañ doon voté yooyu les élections. alors Doudou Ka sama doomu baay bi vacances agricoles gestion foncière et cetera Doudou euh, Doudou euh, catapulte ousman Sonko. moom daal fi mu nekk nii bàyyilul dara ki nga xamante ni moo di moo di Ousmane Sonko nee na il fait de la politique politicienne et il doit arrêter daal. mais il faut qu'ils arrêtent ces garçons là xam que parce que honnêtement. xam nga aussi Sénégal il faut ñu waxoon dëgg. coono man xaw ma man xaw ma ci télé laa ko xamee. musuma ko gis musuma ko jox loxo si bi Pape Alé di def kiyam bi bind kiyam bi. livre am bi euh, livre am bi gis naa ko seen naa ko. mais loxo sax joxuma ko. à part loolu musuma ko teg bët. waaye quand même il faut que ñu ab ñu jóg pour respecter sénégalais yi. Doudou waa Casamance la. Ousmane Sonko waa Casamance la. Benoît Sambou waa Casamance la et cetera et ak ñi leen jiitu woon seen aîné ñoom Robert Sagna ak Famara Ibrahima Sagna. waaye Doudou moom mi nekk waa Casamance. xam nañ ni fu ñu toll nii Ousmane Sonko moo leen tere nelaw biir Casamance. Mhm. malgré li leen Macky Sall jox yëpp comme ay moyens. FONGIP cinquante milliards en cinq ans FONGIP kon bu waxee ni moom euh, di jéem a xas Ousmane Sonko xamal ne Ousmane Sonko du moromam mais euh, quand même Coro Ousmane Sonko troisième la jël ci élection présidentielle sept cent mille personnes ñoo ko votel mu topp ci ginnaaw sa Seck sept cent mille nit ñoo xam ne ñu ngi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ñoo ñoo yi am yaakaar ci Ousmane Sonko xalaat ni war na mën a nekk président un jour mais kooku moroomu Doudou Kala ñoom bu ñu exister c'est à cause de ay Abdoulaye Wade et Macky Sall moo leen jox ndombal tànk yi ba ñu taxaw waaye pas forcément seen mën mënin la wala seen expérience la wala seen xam-xam la il faut que à un moment donné xale yi ñu yem seen place bu ñu buggee am crédibilité nañu wane lan la ñu mën Sénégal Ousmane Sonko 700000 personnes ñoo ko voté man xam nga man dëgg laay wax parce que aussi il faut qu'on apprenne à être honnête Il faut qu'on refuse de s'enfermer dans le mensonge. Il faut qu'on apprenne à être sincère. parce que xam nga lu tax parce que Ousmane Sonko mënul nekk moromu Doudou Ka mais Doudou Ka mais Macky Sall moo ko def li mu nekk. Mhm. moo ko jox ay ndombal tànk. ban liggéey la am beneen bu dul lii bii liggéey bi mu am dans sa vie. politique ba ñu jox ko ndombal tànk. Mhm. xam nga il faut qu'ils arrêtent il y a des gens qui sont beaucoup plus importants dans ce pays yoo xam ne ñi ngi taxaw di xeex di wax dëgg ci dëkk bi ñoo xam ne amuñu possibilité nekk fi mu nekk nañu waxante dëgg Ousmane Sonko mais dafa def un concours nekk inspecteur des impôts liggéey na fa jote na ak ñoom dàq nañ ko génn na assumé na wax ak nag sénégalais sénégalais yi un certain nombre de sénégalais nee nañ ko yow mii am nañ yaakaar ci yow mais loolu dañu war a jox cër yenn sénégalais kon ñu ne Ousmane Sonko euh, ay acte acte politicien la Ousmane Sonko bu waxee ni moom na Sénégalais dem ci mbay mi mais tout le monde est d'accord avec cela mais dañu war a dem ci mbay mi mais bu buñ buñ ko critiquer parce que tout simplement loolu la wax bugguma loolu bugguma injustice coxoo yéen dañ leen jox ay avantage mettre leen ci ay conditions jox leen alal boo xam ne amaan amaana sax boo sàgganee mérité wu leen ko parce que je vous dis il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont milliardisés dans ce man je parce que tout simplement dañ leen dañ leen dimbali man d' accord naa ci kaw ay capacité mais nañu yam nañu yam qu' est ce qu' ils sont capables de faire à part de la politique. Mm-hmm. bu dul bu dul sax euh, wax. Mm-hmm. wax actuellement ñoom foofu waruñu ko tal. Mm-hmm. instant bii nii pour ñu gagner confiance ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy euh, casacé yi. li ñu waroon a def mooy que liggéey. comme ñu ko Anissa waxee. les moyens son la politique la. donc yow euh, moom bëgg na taxaw place bi Ousmane Sonko taxawee. bëgg na def loo xam ne ni tey ji day rëy ci Casamance. comme kon donte doomu Casamance la bëgg na aussi euh, bu fal dee jotaat ñu bañ a fal Ousmane sonk ñu fal ko. donc bu mu tal wax ji duudu bul tal wax ji. liggéeyal <laughs> na liggéeyal ah. waaw. <laughs> mais am ngeen wax ji. man man Coro xam nga laa mere. Euh, doguma la sax day day day day dem ak moroomam. Mm. am na loo xam ne du combat. du combat politiquement du combat donc euh, fexeel nga liggéey. man critique laa mere ah Samba Thiam ah, Ahmed euh, Pape Sarr la yéen na leen trop parce que yii nii yéen la li ngeen war a wax waxu leen ko ñi ngeen war teg ñuy wax ci seen journaux yi tegu leen ko autant des fois vous faites des choses bien mais autant tey euh, c'est mois je vous dis vous avez été nul vous n'avez pas été bon parce que xam lu tax parce que lii du wax bi ak Sonko xam nga la ngeen ko waroon poser ay comme question wala ngeen wax seen xale bi mu poser ko ko ci yan proposition la ñu mën a defal pour Sonko est-ce que Sonko li muy wax mën na nekk wala mënul nekk. mais ñoom lii dañ ko dañ ko jëlee à travers benn émission bu ko invité woon 2STV. waaw reprendre. mais mhm. mu xalaat mais ñoom ni ñu ko reprendre nii moi je que c'est ne tient sur rien du tout. Mhm. et puis ce pas comme mais mënoo xas Ousmane Sonko alors que il moo nekk troisième ci élection présidentielle. mais c'est un homme qui crédible <laughs> <laughs> média yi kay dañuy dañuy promouvoir loo xam ne nii surtout waaw loo xam ne nii tam eh, soit coow la indi duudu yaa ngi toog ñu ngi wax sa der lii ñu ngi wax sa der la alors que yaa ko indi sa bopp du dëgg yaa ko indi sa bopp nit ki mën ko attaqué ci beneen façon boo xam ne ni tey ji doo indi sa bopp xas nañu waxante dëgg kam Alioune Sow wax ko dafa am ay genre nit yoo xamante ku ci mel ni mën nañoo wax. mën nga mhm. doon futur exemple mhm. wala ñu ngi lay yaakaare ëllëg nga jiite réew mi. Mhm. dañ loo war di protéger. surtout ñuy gis say sorti mu doon ay wax yoo xamante ni mais dëkk yi ñuy raw yëpp. ci mbay la ñu rawee. Espagne tey boo demee baykat moo fa gën a riche. tey boo demee Maroc gii rek soriwul ñun ñoo leen ëpp suuf su tëdd. ci kaw montagne yi la ñuy yéeg di bay. ci difficulté yu métti yoo xamante ni tey ji chaque jour nga déglu euh, pomme de terre Maroc wala soble Maroc ñu koy jéggaani di ko indi fii li liñ koy dundee sax moo ëpp sax li ñu utiliser sunu soble te ñoo ñooñu ay baykat lan tey boo demee ci yeneen pays yu ci bëri ñu koy utiliser di ko consommer mm-hmm. ñoom ñoo koy bayal seen bopp man gis naa ko Maroc mm-hmm. da ngay gis kur dem ci biir boutique mm-hmm. du fa jënd sax lu mat dix dirham ndax amul ko soxlaw ko lépp moo koy bayal boppam lépp moo koy bayal boppam léegi nag kii ne nan dem ci mbay mi surtout ñoom Casamance. mais mais franchement nga koy attaqué. Mhm. mais il fallait que ñu ne que Ousmane Sonko li mu wax mhm. xam nga xam nga Sonko tamit dafa nekk koo xamante ni xam nga ci ay euh, élection présidentielle la ñu jógee nekkoon na nekkoon na candidat nekk troisième te bu ko yàlla dogalee aussi ci élection yi ñu jëmaat mhm. dina nekk candidat donc man je trouve un peu normal euh, Aliou Sow que mu am ay nit yoo xamante ni tamit dinañ nekk di ko di ko sànni ay trac parce que comme li ñuy wax ah. oto bi ci kanam la ñuy la ñuy la ñuy ah. mais surtout que mi leen di ñoom ñëpp Macky Sall peut na leen dàq aussi. Mm-hmm. parce que ñoom aussi ak moyens yi leen defal yëpp. Mm-hmm. ils ne sont pas capables de mm-hmm. résister au niveau de la région de Casamance. donc forcément ñoom ils se sentent menacés ci seen confort yi nga xam ne moom la amoon. yaakaaroon ci bëggoon continuer di dund loolu éventuellement nekk meeru meeru Casamance meeru meeru meeru ak yu demee noonu yooyu yëpp ça complique ça se opposition nel mais Sonko lii ak lii li nga wax ni mën na nekk waaye man lii ak lii ak lii la mu ne Sonko na ñëw moom mu financé mhm. la nga bay yow asalaam nee mu ñëw mu jox ko mu jox ko deux cent hectares mais xam nga def non da nga jox doomu Casamance yooyu soxla soxla bi c'est ça mbaykat yaa ngi muy liggéey loolu su ko waxee sax loolu yëpp Casamance yi la waaw loolu dalee na yëpp parce que su fekkee ne moom yor ko ci poche mm. war koo dimbalee surtout mais euh, Casamance am na secteur yu euh, kii yoo xam ne bu fa demee tey jii. bu ko waxee wàllum mbay dañ koy déglu. mais voilà bravo tey su génnee jox leen lan lay dimbalee non su waxee loolu. tamit mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi xasul